Malik maa ngi nuyu di gërëm yàlla suñu borom di julli ci sang bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sama ñaari way jur yàlla na yàlla yërëm ak fa fekk euh, di gërëm bu baax aussi suñu suñu sëriñ yi euh, di ci jiital sama sëriñ euh, sëriñ Mansour di ci aussi Eh, nuyu suñu sëriñ suñu muntaxa sama ñëw fii ci Touba nag lu war la benn bi mooy dama ànd ak sama dom, ci sama jarbaat Alioune Ba ñëpp xam ko ci yoon wi ñëpp xam yaayam ci yoon bi ñëpp xamoon maamam ci yoon bi eh, mu mel ni que loolu aussi am na solo donc suñu ñëwee fii defuñu lu li ñu war a def mooy ñëw en tant que jullit waaye en tant que taalibe parce que ñun kat yoon wu baax ku ca mën a aw ba bokk ci ca ña ko sos ñu ñaanal la yàlla danga ko war a sant yàlla suñu borom donc lu baax la loo xamante ni bii ñëpp war nañ ko rafetlu parce que lu lu baax lu nit ñi bokk ñëpp a koy bokk du pour kenn Serigne Touba pour àdduna yëpp la mas naa wax ni que Serigne Touba li mu liggéeyal dor bu ñuul Serigne Touba li mu liggéeyal borom der bu ñuul Barack Obama fekkiwu ko te tey séddu na ci donc ñun ñëpp suñu wareef la bés bu toll nii bu ñëwee ñu ñëw ziar si ñëw Touba jël li ñu moom li ñu moom rek lañ jël si ma leen di nuyu leen gërëm lan leen sant alhamdulilah kontaan naa. sa digganteeg seen bas gis nañ mu saafoonteeg yow ñaanal la ñaan ko waaw xam nga sama diggante bu ma ñëwee fii dafa am lu muy symboliser day symboliser ak taalibe ci Tivaouane day symboliser aussi ak taalibe fii ci Touba ba tax na cër bi waa Tivaouane war am fii rek bu ma ñëwee moom lañ may jox rawatina nag man nag ñi nga xamante ne bii euh, respect total la ñu am sama diggante ñoom ak yéene ba tax na lépp lu ñuy def lu baax bëgg nañ ma cee boole ba tax ma ànd ak ñoom ñëw donc loolu dama koy rafetlu lu baax di ko gërëme yàlla suñu borom di ko gërëmee parce que bu lëg lekk alom na ko gërëme coy xam gun nu mën a xam ci réew mi ak dayoo gu defal ci réew mi ñu koy sante dafa fekk ne aussi euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum nee na yaay ko tub laaj koroñ su amul njëgg sax tolloo moom boo tolloo boo rombee ngeen seen seen seen parfum bi neex di fekk mën naam sax yow sanguwoo jour bobu waye ki nga denal mo xagn parfum ba mu ngeen rombee mu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh